mbokki jullit yi mbokki réew mi mbokki bitim réew mbokki taalibe tiijaan yépp rawatina dairatu ahmadiya national ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ànd ak di sant yàlla sunu borom jël nuyoo bu ànd ak ziar ko ci la xalif général des tiijaan sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour loolu la yàlla dogal tey waaw mooy la xalif général de Tidjane bu ñu fàtte nag ne woon na man am naa place ba pare ñun ko luy sa place mu ni booy doon taalibe Cheikh Seydil Hadji Malick waaw kon nu nuyu ko ziyaar ko ndokkeel ko ñaanal ko yàlla projet yi am yépp ci kanamam yàlla na sotti mu jiite ko nu ànd kook moom ma ñëw nag pour indi leeral ndax photo yi dañ ko jël dugal ko ci réseaux sociaux yi mu nekk ci biir internet bi ak yenn panel yi nga xam ni ajuwuñu ci Ahmadiyya ñuy wax ni boole kook ay ojo di dëggal wax bi nga xam ni moom lañu wax ci sëriñ Babacar si mën Mansour keroog guddi gàmmu may wax ni kuy wax moom te li ngay wax du nekk dëgg mukk dangay wax rekk waaye ma leeral nag te dimbali ñuy wax lu dul dëgg di leen wax ni foto bi mi ngi am vendredi 22 mars 2019 boori 17h30 ca Kër Muur ca Mauritanie photo bi ci kaw mooy bi sëriñ bi yeggee di wàcc photo bi ci suuf mooy bi sëriñ bi di dem sëriñ Babacar suur moo nekk nii sol baxa bi man maa taxaw nii ci wetam ñaar ñiy sëgg mooy ki loxo bi ak ki sëgg seen baay seen baay la sëriñ bi demoon di jaale ji kër muur seen baay njabootu sëriñ bi la doomu bàyyi sëriñ bi la lépp sëriñ bi la di imaam saaliw sàll kon foto bii ñu jël ni mooy bi muy dem Palmarin c'est pas du dëgg foto bi kër muur la xewe kër muur la xewe ñaar ñii la seen seen baay moom la sëriñ bi demoon di jaale ji ndax seen baay lépp sëriñ bi la waa mbokk yi xanaa kuy doxi lu toll lu rëy li ñu wax ni moom la doon doxi xanaa du ànd ak man man taalibeem laa di déedéet du ànd ak man te rek maa ko rax ñi mu àndal ay doomam lañu Pape Youssoufa doomam la kon damay wax pour leeral di ñaan nag panel yépp nañu jël message bi ak photo yi ak vocal bi ci ànd ñu tasaare ko mu tasaaroo ndax wax dafa am waaye tontu tamit dafa am tontu bi nag du tontu fayu déedéet du fayu de waaye tontu leeral la kon ma bëgg a wax rek ni ñi wax ni gis ngeen sëriñ bi nii ci gaal gi muy jéggi pour dem Palmarin dañoo juum ndax ku dul wax dëgg moom da ngay jàpp ni loo composé ba foog ni noonu la boo ko defee xelu nit ñi danañ ko mën a nangu waaye bii moom xanaa beneen waaye bii moom vendredi le 22 mars 2019 la am boori 17h30 ñuy jéggi dex gi pour dem Mauritanie Kër Muur pour dem jaale ji imaam Saayu Sàll mooy bàyyi ñoom Habib Sàll mooy bàyyi ñoom. Abdoulaye sàll mooy bàyyi ñoom Moustapha Sall ak njaboot gi yëpp damay bañ a lim doomam yi waaye bu ma tuddee ñooñu rek ñëpp mën a dugg incha allah nuy ñaan borom bi yàlla yal na yàlla dolli sutura yi yal na yàlla dolli jàmm yal yàlla def taysir nasir ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa lépp nag mu lalu ci muñ comme ni ko cheikh alhaaj mouhamadul mansour radiallahu taala anhu waxee innama wamal innama al amalu bi sabri wa tuqa waaye wala taltafit nee na jëf yëpp yëpp yëpp yëpp mu ngi lalu ci ragal yàlla ak muñ waaw muñ fi mu toll jamono bii ku ci mënul ku ci mënta muñ ñàkk dëgg-dëgg lee nga lekk lu lewul ku ko mënula muñ ku mënta muñ ñàkk léegi-léegi lee nga lekk lu lewul daa ñëpp la ñuy mepp fi mu toll. xam nga Aziz li yées ci àdduna mooy man sëriñ bay takk naa rek naa fexe ba Abdoul Aziz Mbaye takk mooy yées ci àdduna ñëpp loolu lañuy dox te bu ñëpp takkee musiba am kon ku ñuy jooytu bu ñëpp takkee kan moo ñuy waxal yàlla indi moo tax sëriñ Mansour si radiyallahu taala anhu ni nañu muñ wasaayinu bi sabri yaa ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqi mimma yamkurun yooyu yëpp nekk fi fa tabaarakallah inna allaha maa saabi saabirina waaw yooyu ñëpp yëpp a ngi fi rek Abdul Aziz waaw waaw bu ko defee nag wa sabru wal afu wal ixsaanu min chiyamin turdil ilaah waaw wa sabru de waaw walil xayraat yi waaye sabru gu lay ci leneen lu dul lu dul yiw kooku du kenn ko tudde sabru muñ gulay lay xiir ci lu dul yiw kenn du ko tudde muñ moo tax Seyd Xaj Mahamadul Mansour radiallahu taala anhu nee na jëf yëpp yëpp yëpp yëpp mu ngi aju mu ngi tegu ci kaw muñ ak ragal yàlla Abdul Aziz ku ragal yàlla du tuumaal mbokkam luñ ne la diw dana ko def doo ko ko xoole ku ragal yàlla luñ ne la dana ko def doo ko ko xoole da ngay moytu da nga koy bàyyi ndax loo xoole nit bala ngay dee def loo xoole nit bala ngay dee def ko ko xoole ci lu ñaaw bala ngay dee def ko bu dee lu rafet bala ngay dee def ko waaw da nga koy def bu dee lu ñaaw it bala ngay dee def ko boo reetee naa nit nit yi dafay naan sàngara bala ngay dee rek di nga ko góox amul sax werante Seydina Muhammad a ko wax moo tax koo gis mu ñaaw la rek ñaanal ko yàlla mu génn ca te nga bañ ko ree ndax dund gi moom koor la ba ca fi jubul wees waaw moo tax ñu naan mooy yàlla guy indi rëccu moo gën guy jaamu yàlla guy indi rëy mooy yàlla guy indi rëccu moo gën jaamu yàlla guy indi rëy am na déggin de. am na déggin mooy yàlla gu lay tax tuub dellu ci yàlla. moo gën jaamu yàlla gooy gisee sa bopp Abdoul Aziz. baaxul mooy Riya. Riya baaxul fenn. waaw. waaw kon. mu ne waraatal tafit Abdoul Aziz boo dee def lu baax. ku la mën a woo. bu ko geesoo ti continuer ci loola rek. innal karima xayu nee na gor dafay fiir ca la ko tax a jóg waaye gor gu fiiru ci diineem fii mu toll sa dara du jag Abdul Aziz xam nga gor yëpp fiiratuñu gor yëpp fiiratuñu boo fiirul ngir sa bopp fiira ngir yàlla waaye gor yëpp fiiratuñu kër yi ñëpp ay dugg kenn ku nekk ngi dugg jaxasoo bi lépp a ngi am kenn fiiratuñ ah. fiir gi rax na bu yàgg bu yàgg lépp seytaane pare na